dem na dem na Fall na xam kenn la wax xalaat ñàkk la xoolal xuus rek jàll nañu daan jël bu rëy si kàttanu yàlla incha allah jëlal li doomu soose bi xalaat ñàkk la. et eh, ça yéen a yoroon kankura bi. ñu la waa Tivaouane ñoo fi def lu kenn amul te su daan bi lépp si la dàq jinne yeeg lu ñu yor moo tax ñuy naan kankura combat bi mu toll nii des bëreetul ay simili moo des. dara nañ ñaan yàlla sunu borom ma ñu victoire bu leer naa ñu jaan jël wala du yomb xale bi daal liggéey booy daal liggéey def ñaabu instant ñëpp a koy xeex pour ñoom xoolal waaw doomu dubales bi daa jeexal danoo xeb saa kees xeb bala mais pour l'instant nii nii wax baaxul sunu borom dinañ leen woon tax nga toog fii maa ngi koy seetaan solo damaa naroon dem esat mais bëgguma dem esat lii moo tax doomu ma esat lii ah, ah danoo wóol suñu bopp yaa ma dégg ah. ah ñun Balla Gaye hmm? suñu xarit la suñu gaañ la suñu lépp la yaa ma dégg hmm? ku baax la hmm? ku mën a dimbali nit la di dimbali suñu yaay dimbali suñu papa ak dimbali suñu suñ suñ raxe ak suñu jarbaat doom yeeg ñëpp. waaw am na ay doom koy. Ah, comprendre nga comme yaa ma dégg. Eh. Balla Gaye man maay magay magay sek comprendre magay gaan Balla Gaye la ak Sa Thiès. ok Babou Seye Fall. ak gaan Këjëf. waaw waaw. borom Touba. Balla Gaye lay daan. bilaa walaay taala. moo la bu géej waaye amul xalaat. na la demee nag ku ti du dal dara du xew xalaat ñaax la xuusa jaam sa feebar rang toog nii xaar ndam li wàcc saye bilaa yow yéen am nañ jàmm rek xoolal instant yi amu leen pression pression amuñu ko yàlla xam na ko pression amuñu pression ndax ñun ki sunu sunu euh, mbër mi dañ koo ngemb bu mu dëgër te dañ ko woolu te lim ñu tàmmaloon rek da koy dem daañi rek ñibbi si. yéen a den ak Balla Gaye kër nii. ñoo taxal ak moom benn kër benn kër Balla Gaye di sunu rakk di sunu doom di sunu lépp waaw baax ba bëgg a macha allah yaayam nag moom kenn gënu ko waaw di ko ñaan ñaanal ndam rek. est-ce leen moo tax sànni leen làmb. yàlla xam na ne tiitu ñu ñun non stress la ñuy dund instant dañoo kontaan xam nañ ñun ndam la day ñëw fii. moo ñu tax a toog fii. kon pour feete nii pour préparer feete. ñun feete nañ bu yàgg ñun am nañu ndam bu yàgg am nañu ndam bu yàgg barki Seydina Mohamed am nañu ndam bu yàgg barki Serigne Touba ak ñun ndam li ñëw na ba pare kese ndam li ñëw na ba pare golf. ate di xaar tuuti ndax la si tax léegi ba lay tuuti ay simili. ma ne tey moom ba pare ñun instant yi moom pare nañ ñun ragaluñu loolu ragaluñu ko déedéet. Balla Gaye xoolal bu bu ñu baal ngay daane ba pare nga ñëw ñu waxaat leneen. Boña Boña moom na dem tëddi dafa réew. dafa réew nga ne. mais Balla Gaye loolu loolu def. Balla Gaye. ba mais baa ma wokk bàyyi mel bi ma wokk déedéet wokk ma dafa def nii ma laal. mais man géwal laa xam naa de. Eh, salaamaaleykum. maaleykum salaam. Fatou Ngom. waaw <laughs> mafia bi waaw Balla Gaye xoolal su jàppee boo ñaa dootu ko defati bàjjana moom moom doo dégg nañ ko léegi mu digg ci tiktok bi di saaga yaay Balla Gaye moom dootu ko defati Pikine lañ koy fekk ñoo gën a ban dañuy roof rocc jam barki Seydina Muhammad waaw Balla loo wax dañ koy rey ñu lay saaga dootu ko defati ndam li fii rek dafa juum ndam li xoolal fii rek kenn mënu fi tax dee fii yàlla bind na ko pare ndam ni dee def ngeen tiktok rek mën na basse mo sam la nee na tantaam la gisoo ko mu ba kanam gi la xeesoon na ba mu yàqu gisoo ko noonu mu cere ba yàqu tantaam la de ndam li fii rek na préparé bu dee jigéen la na fii ba rek ay ay ay ay bàjjanu Balla Gaye dinañ ko doon nañ ko daan moom nañu préparé nañ ñëw rek ñun ñu ngi leen di xaar jeexu xool feek leen mafia golf ak leen di xaar. jéego Pikine ak jéego baax jéego Guédiawaye si ko si ko maa ngay bokk. Ah, ci lañ bokk ñu doon dëkkandoor yi neex yu baax wax dëgg yàlla Balla Gaye doon xale bu yaru ku baax ku jullite ku bëgg nit tamit waaye ñun daal instant yi moom amaguñu lu ñuy wax. mais da ngaa tiit nag yow. dañuy ñaan non pas tiit yow ñoo xanaa gisoo ko ñun ko ñu yor gisoo Balla ah, tiit. ñun dañoo wóolu suñu mbër boom di Balla moom dañ ko wóolu dañ koy ñaane yàlla nag ndam ji set wecc allah rabi te yàlla dina ko def sax. du bari lool Boy Niang lu may wax ak moom moom day xaar tuuti waa day xaar. ndam li ndam li ah gis nga ko Ami Balla gi nii bëgg ko lool nag. te ñuy ñaan yàlla yal na ko yàlla may ndam di ko ñaan ci barke sëñ Abdou Karim Mbacke te yal na am ndam ñibbisi si golf gi ndax Omar danoo dëkk ak moom dëkk bi rafet mu bëgg nu lool waa këram baax lool tubarkalla laf cat seru fot sans défaut nit la ku baax. moo tax na dañuy ñaan yàlla di ko ñaanal ci barke Cheikh Abdou Karim Mbacke Omar yal am dam ñibbi si golf te muy doon lu ko jik ndax lu baax dong lañ xam si moom ñun ñi dëkk ak moom ñun ñëpp la bëgg te nekk bu rafet la nekk ak ndax olof Njaay nee na bu ne baax na laajal ndax bokk yaa ko wax kon nag Omar nun fu mu dañ koy tagg ndax baax la nu war ak yar ak i tekki waaw ndeysaan kay ma wax ci moom sànq ci moom doyut man nekk naa këram bu dul benn fan du ñaari fan nekk naa ko këram su ma yekkaan añ danaan ndax est ce que tibbal nga sama yaay bu yaay ma añul du añ danaan tibbalal mère bi pare mu soog bu ko liggéeyam ndeyam walloo bi lay ndam rek ndax nañ koy ti moo xam naa bàyyam ba ci àllaaxira gërëm na ko de te yaayam gërëm na ko lekkul bàyyi ay rakam lekkul bàyyi waa koñ bi wax dëgg neex yàlla jàmm rek felpere waaw rocci jàmm fili rek. magu Balla Gaye waaw dafa leer. magu Balla Gaye dafa leer. magu Balla Gaye mag bu Balla ah, mag bu Balla waaw. Ah, doo mag bu Balla waaw. Ah, non dara damay xaar sama damaa toog nii di xaar sama victoire waaw man lam Balla Gaye moom du question na booy naa mais tàmm ma ko damay toog nii si mbedd bi féexlu jël air xaar sama victoire ma génn jubilé booy lamb ji wax rek la si am amu si leneen bu daanoo lay comprendre après lay comprendre lu xew na toog xaar ay simile si des mais instant ñoom ñaar ñoom ñoo si digg bi noo gisee fu mu toll nii ñoom damay ñaan yàlla def jàmm yàlla may Balla Gaye de ndam bu sedd guy bu mel ni glace waaw maa ngi koy ñaan waaw si barke yonent bi ok. <laughs> jooyu ma de. Balla moo bëri noonu rek. loolu laa ko yërëmee ñi sot. lan nga dafa bëri noonu. ñi koy sot moo bëri. mais yàlla baax na yàlla doo ànd ak ñetti nit yàlla ku wéet lay àndal yàlla nañ yàlla may ndam si barke bi ah,